Diop élection yi nu reporté ka ana lan mooy doon taxawaayu ñi nga xam ne ñoo di kilifa diine kilifa diine li may wax mooy nañ jël seen responsabilité ñaaw na lool Sénégal ñaaw na lool Sénégal Cheikh Alou Khadim résidence surveillée nekk 15 ans 15 15 ans à Diourbel lan doon xeex injustice la doon xeex Cheikh Ibrahima Niass El Hadj Malick Sy yónni salaay salaam ñoom ñëpp nit ñu baax ñi ma leen limal ñëpp injustice lañ doon xeex Macky Sall diiraa 12 ans injustice la doon teg nit ñi askan wi. ñoom ñu ne pat pataaral lii nag damay jàpp ñoom seen responsabilité mi ngi ci nañ wax ak Macky Sall jaay dool mi ëpp na li gën a ñaaw nag li gën a ñaaw mooy kilifa diine yoo xam ne nii heure bu ñu waxee ñu dañoo war a wax rek dañuy fàttali suñu Abdou Lahad Maam Abdoulaye Dabakh sëñ saaliw ñu xam ne bañ faatoo kenn xamul kañ na kon loolu rek ñoom war nañ ca bàyyi xel ay ñun suñuy si ñun ñoom suñuy sëriñ lañ suñuy kilifa lañ ñun ay taalibi lañ mën a doon mais tiis yu ñuy teg nit ñi naqar yu ñuy teg nit ñi ñu ngi koy teg ay duñ ay congolais duñ ay mauritanien ay sénégal lañ jóge si asamaan si jóge suuf si fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ ñaan yàlla tekkee bëgg a defar réew mi ñoom ñooy suñu kilifa soo xoolee jeunesse boo wax mun la kilifa yi duñ dara koo wax mun la nangam kilifa yi nangam fii kilifa amatu fi seen taxawaay moo des peuple bi santeetuluñ leen seen côté nañ nag au côté du peuple Macky Sall éternel te lii wane na ko tey li Macky Sall wax la xam nga ne nit nul n'est éternel dans ce dans ce monde le 2 dafa war a bàyyi réew mi le 2 avril keneen moo war a gouverner Sénégal nan lay gouverner Sénégal ñoom kilifa diini ñoom lañ ñoom ñoom seen responsable mi ngi ci nañ wax ak Macky Sall d' abord mu bàyyi Ousmane Sonko su am ku muy négocier na négocier Ousmane Sonko Macky Sall li mu bëgg Karim Wade du ko may Khalifa Sall du ko may Barthélémy Dias du ko may yàlla xam ne kuréel Ousmane Sonko mënu ko may kilifa diini nañ jël seen responsabilité milliers de détenus politiques man mii di wax yow man mii di wax misaal laaj atu yàlla lañ ma tëj génne ma ne ma defoo dara ay doomi jàmbur lañ tëj famille ñi ngi tas sëy yaa ngi tas ñii ñu génne seen kër na amatuñ liggéey ñu ngi leen tëj ñii lafañ nañ ci kaso bi ñii dof nañ ci kaso bi ñii yoratuñ dara parce que moo ci sonn ak les patriotes kilifa diine yi fi ñu toog nañ ci génn nañ bàyyi patar patar wax ak Macky Sall mii li muy def jaay doole la Ousmane Sonko tëj gi nga ko tëj ba si joxe tëj gi ko tëj kilifa diine suñ toogee seetaan ko man damay jàpp ne ñoom ay complice lañ dama koy wax te dee lépp loo wax lu dul dëgg leneen la mais du mais mais dëgg rek kay dëgg nañ wax dëgg senegal nii mu demee di yoon peuple bi dañoo xaar ne dañuy sanctionné Macky Sall taaluñ pëna sànnuñ ay xeer parce que réew mi ñu ñoo ko moom dañ ko war a defar Macky a poussé nañu à bout tontuñ ko parce que Ousmane Sonko moo nañ damay dem élection bëgg bëri bañ bëri mu lànk ne du bëri li ko ciy génnee yàlla xam na ne Ousmane Sonko moo ko ci génne leen mënu ko ci génne képp ku ne ko da nga yor réew mi bàyyi ko si jàmm def la neex loolu amul fenn na kilifa diini wax ak mag sàll doomi jàmbur yi ñu jàpp na leen baax ka ciy jiitu mooy Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye jaa ngeen jëf. gis nga président def déclaration léegi fa yéene dàq élection yi ba jëmmi jamono ana ban jàngat nga mën def si loolu. waaw xanaa am naqar ak mbetteel ndax man fi may wax ak yow nii euh, dama waroon def comité électoral fële ci Lambaye. 15 euh, heures lañ woote woon pour daje bon euh, ginnaaw bi lañ gis dogal bi mais dañu ci rus lool sax ndax euh, bu fekkee Macky Sall dafay bàkkoo ne moom dafa liggéey ci réew mi fukki atak ñaar dem ba xelam dalul ci ne bu demee élection de des koy gagné xelam dalatu ci ba muy dàq élection yi gàcce laa ci am man. te xam naa ne sama suñu mbokk APR yi nga xamante ñoom la bokkal parti war nañ ci am gàccee bu baax a baax a baax léegi nag mi ngi noonu. Euh, ndaxte euh, ay terre luxe lépp Sénégal soxlaaw ko ndax boo demee si suñu communes yi ñun yoon yu ñu jaar sax amuñu ko euh, ay 9 kilomètres mënuñu am yoon mbay mi doxul amul dara coppite boo xam ne am na ci suñu communes yi ci boobu ñu ngi jël ay 1000 milliards ay terre nangam nangam xañ na loolu nekkul priorité sénégalais yi looloo tax loolu moo ñu yóbbu ci lii te Sëñ Moussa dafay wax ne. ku jël jigéen ne méng ak moom ay at mënuloo ko dara ci ay wet benn guddi taxut nga man ci moom dara kon Macky Sall du mës a jekk day gën a metti ci moom rek ndaxte même bu fekkee dafa dàq élection yi danañ continuer di wéy di massifier di gën a ñaax sénégalais yi di leen gën a xamal li xew ci réew mi di leen gën a xamal ndaxte sénégalais dañu sonn na ñun ñii suñ am na ñaari frères yi nga xamante ne sàccug jur lañ leen tëjee kaso ñu ngi kaso Jurbel ci làmbaay te dañu sàcc seen jur euh, euh, ñoom ñu jàpp sàcc bi xaw koo bàcc bàccal ñu jël leen jàpp tëj ci kaso bi te dafa metti ngay tëdd ba guddi ñu jël sa sa alal amul sécurité amul dara ñetti gendarme benn oto kon Sénégal mën nañ ne jafe-jafe yi dafa bëri mënul wax a wax a wax a wax ba génn ci ñun ñoo doyal ci nguuru Macky Sall ñun ñoo doyal ci système bi te système bi alaa kulli yàlla dinañ fi jóge ndaxte ñun ndaw ñi pare nañ pour mu jóge fi te ndaw moo yor réew maa ngi woo ñëpp nag di masawu sama mbokki làmbaay yi nga xamante ne tey jii ñëpp nañ fépp fépp pour teewee euh, activité boobu te tey yàlla dogal ne mu demee nii. ñoo ngi déglu waa parti bi nag. voilà moom dafa daal di woote dialogue pour nu jubbanti li nga xam ne nag moom mooy euh, système bi am rëq-rëq yi am ci wàllum politique bi ana tey ji ban analyse nga mën a def ñeel dialogue bi nga xam ne président woote na ko. man damaa mosul gëm dialogue gu Macky Sall li président Ousmane Sonko di wax rek Macky Sall du nitu dialogue ndaxte moom moo toog ne bàyyi naa nju njaaj kon moom am nay nju njaaj yu mu doon def. kon bu ñu toogee di xaar ay dialogue Macky Sall rien que instant bi jam nañu benn puso mooy euh, mu ngi xool élection yi nan la koy dàqee del xool dialogue boobu la bëgg a profité rek wax carrément dina dina dàq élection yi ci benn diir bu gudd kon ñun xaaruñu Macky Sall ci ay dialogue xam nga lan lañ koy xaare mooy moom na ñëw ñu dem élection ku gañ jël bon absolument comme ni ñu ko constaté ñun ñi ñëpp tey la journée président Macky ñëwoon di prononcer adressé à la nation Euh, ñu doon déglu nag patientement di loon xaar tey mu programme élection yoo xam ne de transparent élection yoo xam ne day am le 25 février candidat yi yëpp euh, dem ci ku xam ne Sénégalais yi moom lañ tànn mu nekk président de tous les Sénégalais le le soir du 25 février mais malheureusement euh, ñëw na di wax ay waxi dialogue di wax ay waxi bon comme ni ñu ko déggee ñun ñëpp ay report d'élection te sans autant que mu joxe. kañ la ñuy war a dem élection parce que man jàpp naa ne comme ñun ba ñu jàng su devoir su amee euh, professeur bi su ñëwee na devoir bi reporté nañ ko day joxe ban jour nañuy def devoir bi mais moom dafa su lu ma jàpp report am na te ñu date exactement kañ la ñu war a amal élection présidentielle cela veut dire que kon ko loolu moo gën a pur reporté maintenant la suite c'est quoi may dalal xelu Pastef les patriotes euh, ak coalition jomaay président que nañ déglu suñu leader muy président Ousmane Sonko parce que jàpp naa ne lii yëpp waroon na ko prévoir waroon na ko tey y de des stratégies xam ne danañu ko teg kon tey bu ñu découragé parce que ba ñu commencé suñ combat bi di ko xeex ba léegi duñ ñëw ba fii nii ci cappaandaw gi boo xam ne yegg si nañ ci terminus ñuy laisser le combat kon rien que pour le détenus politiques je vous appelle solennellement ngir yàlla ak yonent bi restez focus bu leen kenn divertir. élection

mais am naa yaakaar ne tey loolu yëpp du ci diñ ci yegg parce que jàpp naa ne man ba jusque la élection dina am 25 février te le 2 avril incha allah passation de service dina am te Pastef les patriotes dirigera ce pays. te lenn rek lay wax gars yi comme nu ma ko waxoon sànq rek mooy na ñu déglu président Ousmane Sonko stratégie bu ñu tegal rek c'est la bonne ñu suivre ko te su fekkee ne lu may wax mooy ñoom dialogue national ñu woote dialogue bala muy am. c'est-à-dire il faut mu am ñu xam ne dañ koy séq ñu des hommes de xam ne dañ leen dañu dañu dëggu mm-hmm. ñu xam ne tey dañ leen di déglu ñu xam ne sont respectueux su daj boo xam ne dialogue boobu lépp li ñu fa def ci acte ñu signé ko respecté ko mais tey jaloog mënul am ci loo xam ne après yow doo comprendre kon tey lu ma jàpp mooy lu président Ousmane Sonko waxoon rek on ne négociera jamais avec un pistolet sur la tempe c'est-à-dire su fekkee dialogue nar na am dialogue yi dafa war a am ci lu leer mais doo ko tegal ay nit ay dossiers na ko kaay man lu may sàkku rek mooy Pastef les patriotes yéen xool leen ngir yàlla ci les détenus politiques xool leen ngir yàlla ci Diomaye fay ak président Ousmane Sonko vous êtes trop émotionnel on est d'accord mais c'est pas le bon moment ñuy jooy wala ñuy def quoi que ce soit wala ay ñuy jéem a divertir wala manipulation nañu reste focus déglu président Ousmane Sonko avec leur stratégie avec ce rythme on y arrivera incha allah et Pastef les patriotes dirigera ce pays en février 2024 merci beaucoup. Ah, sëñ bi nuyu naa la. Euh, maa ngi lay fay bu baax a baax. gis nga sa naataangoo bi fu mu daanalee amaan na foofu laay ànd ak yow muy euh, dialogue bi nga xam ni président woote na ko est-ce que tey jii Ousmane Sonko moom ci boppam jiite parti bi di Pastef report report na élection yi moom dina fas yéene ànd ak président si li waaw euh, comme sama copain bi nu mu wax rek. foofu laay dellu euh, appuyé waat ko rek mooy que le président Sonko ku ko xam xam ko ci conviction xam ko ci constant parce que ñëpp xam nañ slogan bi mu waxoon mooy que on ne négociera jamais avec un pistolet sur la tempe donc pour man nit ki doo ko xañ ay ax ax ay yelleefam ñëpp xamoon nañ ne le principal opposant ki nga xamante ne tey moom moo të nguur gi nga xamante ne moo fi nekk te lépp mu teg ko ci dëgg tey kooku noonu tey doo ko xañ ak ak yelleefam ba xañ ko mu bokk mu nekk candidat ba pare mu jël ci ay dunkam teg nga xam ne kii misiba la ci yow parce que moom moom moom moom nga xañoon ak ak yelleefam tey ki mu teg tey même chose la mel la mel la représenté nga ragal nga ragal koo xamante ne tey xañ nga ko ak ak yelleefam ko kaso ba pare tey nga taxaw nga ne da ngay woote dialogue national sur quelle base sur quelle base tey bu fekkee ne da ngay woote dialogue national man sax balaa may ñëw si dialogue national bi damay wax ci report élection yi report élection lan moo xew si Sénégal lu war a tax tey ñu reporter élection lan amul tey le président Ousmane Sonko moom mi nga xamante ne moom mooy principal opposant euh, Macky Sall nekk koo xamante ne tey ñëpp xam nañ ne Sénégalais yëpp moom lañu jox bopp tey jii nii nga xañ ko ak ak yelleefam xañ ko mu nekk candidat mu toog ne pat ñëpp ne garaawul nañu dem mu bàyyi lépp ak si loxoy yàlla sunu borom ndax moom yàlla la gëm tey koo xamante ne nekk fi am double nationalité nekk à l'extérieur am problème ñu boleke ko loolu war a tax tey ngeen sonal sénégalais yi ba ne da ngeen di reporter élection yi sur quelle base il faut que ñu respecter sénégalais yi parce que sénégalais yi sonn nañ ci gouvernement bi fi nekk on en a marre mënuñu souffrir douze ans ba pare Macky Sall ñëw yow xanaa booy reporter élection sax mais nga wax nga joxe date bu précis mais looy ragal reporter nga élection yi après pat nga toog nii di ñu seetaan quoi léegi ñun ñu toog nii dans le coma nii quoi message bi may lancé mooy patriote yi parce que man ñoom ñoo ma intéressé quoi parce que xam nañ ne dëkk bii nii. bu dee gouvernement bi fi nekk rek teguñu dara ci loo xamante ne euh, lu raisonnable la lu xel man a nangu la lu ñu ñi mën a comprendre la parce que ñu fi gis ñun xamatuñu ko luy weesu na sax jaay doole amul sax si dëkk yi nga xamante ne royaume moo fi am dañu waxante dëgg sénégalais yi dañoo sonn bu mu leen bett nag ñu gis ndaw ñi jëlaat gaal gi bu mu leen bett ñu gis gars yi di jëlaat Nicaragua bi mais nag du leen ci encouragé li may wax patriote yi mooy jóg leen siggi comme ni ko sunu leader doon waxee jóg leen siggi jóg leen taxaw temm te xam ne si yoonu dëgg ngeen nekk waru leen dellu ginnaaw bu leen demee bay dellu ginnaaw na ngeen xalaat ne am na si seeni moroom yoo xamante ne tey génn nañ àddina nangeen xalaat bu baax a baax que ne suñuy suñuy moroom ñu ngi ci biir kaso bi te ñooñu gënuñ ñu nañ taxaw temm déglu suñu leader ndax ñëpp xam nañ ne le président Ousmane Sonko moo ñu gën a xam ki ñu jaanul kon ñun amuñu dara loo xamante ni dañ koy rëccu amuñu dara loo xamante ni dañuy day tax ñu découragé tey la ñu gën a taxaw fi ñu taxawoon te tey la ñu gën a ànd ak le président Ousmane Sonko lépp lu mu mas a teg rek incha allahu taala ñun ci la ñuy sax ragaluñu te duñu mas a dellu ginnaaw te dañ xam ne projet bii ñuy daw di ko daw di ko di dàq élection yi di teg seen i plan di dem projet boobu yàgg-yàgg tey sax si Sénégal le président Ousmane Sonko avait dit sàcc bu bu bu ndarta raw jaruta yàqi nelaw te wallahi l'azim un jour viendra Pastef les patriotes vont diriger ce pays et nul ne ne, pour ne rien pour arrêter sa projet inchallah jàpp nga fii ak juróom-benn weer wala fii ak at daan organiser élection présidentielle yi loolu par la force la sunu baat ni poto lampe parce que Sénégal lii mosu fi am man de bi ma juddoo ba tey mosuma koo gis ah bu dee am na ku ko gis na ma ko wax maa gis loolu fii Sénégal lii yëpp boo leen ko gisee ragal opposant ki nga xamante ne dafa indi projet boo xamante ne c'est le projet de souveraineté lu ñëpp moom ñëpp jot si ragal dong moo yóbbee lii li ngeen di gis nii yëpp ragal la mais pour pourquoi avoir peur président kay boo demee ba nga xamante ne yow sa mandat mu ngi jeex yaa ngi waaj a dem mais normalement da nga waroon sénégalais yëpp dañu waroon kontaan ci yow nga wane say résultat nga dem bay dem bu fekkoon ni da nga liggéey carrément boo demee bay dem sénégalais yi si boppam ñooy taxaw ne doyaluñu toogal doyaluñu boobaa nañ xam ne ah njiit bii rek kat liggéey na mais njiit boo xamante ne yow yow non seulement sa mandat jeexagul ñun ñaa ngi fipp di xataraayu di bëgg a dee muñ ko sa dem bay jëm ba mu desee la un mois nga ne da ngay puusaat élection yi di gën a souffrir loo yi mais yërmande yërmande suñuy yaay sonn nañ suñuy suñuy frères sonn nañ dëkk bi kenn xamul lii lan la pression vingt quatre heures sur vingt quatre ñun déjà dund bi métti na Sénégal amutul maanaam Sénégal daal lii tax ñu naan réew loolu lañu gisul ci Sénégal te institution jàpp naa ni loolu mooy tax réew nekk ci jàmm te li ñu gis nii jalgati institution yi la ndax li ñuy def teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci loi teguñu ko ci règlement teguñu ko ci dara lu dul damaa ragal président Ousmane Sonko damaa ragal ki mu joxoñ damaa ragal projet bi loolu dong la du leneen mais patriote yi soyez courageux da nga xam ne ay nitu dëggu ngeen yoonu dëgg ngeen jël munoo nekk ci dëgg ba pare di dellu ginnaaw wala di ragal déedéet siggi leen bu amee ñu am gàcce waa côté bële ñoo am gàcce mais yéen ay jàmbaar ngeen ay gor ngeen restons focus et restons à l'écoute le président Sonko yàgg-yàgg incha allah dina communiquer ñun ndax ñun moom rek la ñuy topp li ngeen di bañ a dégg président Sonko moom dong la ñuy topp moom kese la ñuy déglu li mu wax loolu la wasalaam mais ci biir loolu noonu léegi loolu noonu noonu loolu yoon la du yoon benn defe naa nguur gi kam ko ko jox du suñu borom te suñu borom moo mën lépp moo am lépp am déet te moom kun fa yokkuwoon defe naa moom moo am nguur bi nga xam ne kenn du ko mos a kon tey bu jëlee nguur jox ko doomu aadama pour nga teg ko ci code yow bañ kaa teg ci code di def lu la neex defenaa naa deewu kañ a ngay dee après xam naa loolu de te loolu te si loolu la ñuy toll nag parce que Anta Diop am na lu mu waxoon quoi suñu bàyyi xel bu baax a baax Abdoulaye Wade balaa muy toog xam nga kenn xamu ko woon. mu ne carrément di mooy toog lan la waxoon kuy remplacer Abdoulaye Wade mu tegul mbir bi ci yoon ah ñetti deet ne ko si fekk mooy premier deet mooy lan kaddu bu mu wax ab gone bu ndaw bu ne ko da ngay fen lañ toll n'est-ce pas ñaareel bi dina dee politiquement n'est-ce pas ñetteel dee bi mooy lan na dee si biir mooy lan lu mu liggéey loolu la ko borom di fay si loolu lañ toll nag te moom nag yal na ko yàlla sifaay waaw gis nga malayka moo te kuur bu mu yoroon xaw ma marto yàlla na ko dal te la koy dal te yàggatul du aj na mbiri borom léegi mu aj ko moom tamit te noonu la fay demee waaw mais Macky Sall naa la xamal de ñow yow njabootu firi aw na nga bilaay walaay parce que firi aw na yow moo la ëppoon doole ëpp la lépp ci lépp ci lépp laa lay wax nii mais xool borom bi nu mu ko téegale si ab ndox la ko téegalee mais yow boo moytu ab yomb sa wala ab jargoñ wala ab ab unku moo lay saw day la nga wàcc billaahi walaay wa taalaay parce que yow bëggoo ñu baax le waaw te say njaboot sa dëkk boobu noonu xaw ma mu njëriñ liggéeyul xaw ma ba niveau la am xaw ma lu mu jàng te ñu ko gën a doon intellectuel yor ko fii ay diplôme ñu ngi toog fii xoolal waay la moo tax nga génnee joolaay pale parce que nga xam sa ñaawte fi ngay def génne lu ci de bilaay walaay leer laa lay wax ni mais lu lay yoot xamoo ko boo ko xamoon li nga reculer waaw wat seese fii àll wat seese xam na nii waaw dooman dooman rek yàlla baax na